Canal Plus nag lépp lu xeetoog tàggat yaram ñoo ci mën rawatina football kon ko amagul seenub décodeur li ñu lay ñaan moo di nga daw wuti ko ki ko am te abonewul wul woon tamit li ñu koy ñaan moo di mu dem léegi abonné ji ndax Coupe d'Afrique bi ñuy dund jamono jii du fenn fudul ca groupe Canal Plus rawatina Canal Plus CAN Une canne incroyable, unique, que quelques jours pour profiter du décodeur à 3000 francs avec installation et parabole offerte loo leen di xaar profitez de 100% des matchs et 100% des experts sur votre chaîne Canal Plus CAN fii la CAN bi xewee fii la supporter neexee c'est maintenant ou jamais votre décodeur à francs seulement courez vite en boutique ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu France bi ak Sénégal tudd Iron Gomis gone gi nag ma nga woon ci réewu Turki waaye jugee na fa wutali réewu Italie club bu ñu naan Salernitana fa la xaatim contrat bi ko moom tuddu Kasim Pasa nekk ca réewu Turki nag da ko able képp ca Salernitana muy Iron Gomis nekk milieu offensif bu mën la muy def ñu jugee ci Iron Gomis ak clubam bu bees jël doomu Gàmbi bi tudd Ibrahima Darboue moom nag club bu ñu naan AS Roma ñoo ko moom waaye able nañu ko nag génnul itali waaye génn na Série A ba ndax dem na ca Série B club bu ñu naan Sampdoria foofee la ko AS able muy doomu Gambie bi tudd Ibrahim Traoré able képp nag la ko fa waa AS Roma def ba saison bi ñu nekk jeex maanaam juróom benn weer yi des ci saison bi muy doomu Gàmbi boobee nga xam ne footballub Gàmbi am nañu lool yaakaar ci moom ñu jugee ci Ibrahima Eboué ak këlëbam bu bees jël doomu France bi di Hugo Ekitike moom nag jugee na ca Paris xaatim contrat ca Francfort nekk ci réewu almagne attaquant bi nekk doomu France amul woon temps de jeu ca Paris Paris nag ba ñu ko bëggee jaay yàgg na jamono ji nag defee xaatim contrat ca Francfort Francfort nag da koo àbb mu ànd ak option d'achat boo xam ne obligatoire la maanaam par la force la saison bi bu jeexee waa Francfort ñu jox trente millions d'euros waa Paris moo xam doxal na am doxalu ñu jugee ci igo Igor Ekitike waaye Paris googee duñu ko génn gum doomu francais yi tamit duñ leen bàyyee gum Paris suba dañuy jàkkaarloo ak Strasbourg Paris moo koy fekki match boobee vingt lay door waaye Ousmane Dembélé mii du mën ca match boobee li ko waral moo di dafa am blessure bu ndaw loolee moo tax suba bu Paris di fekki Strasbourg du mën a bokk ca match boobee muy Ousmane Dembélé ñu juge ci Ousmane Dembélé ak waa Paris ak seenub xibaar bu naqari dem ca waa Chelsea ñoom nag seen gone gi tudd Armando boroxa able nañu ko cëfëlam able googee nag ànd na ak tuuti cib xaalis loolee la tubaab di wax prépayant jamono ji waa Chelsea falam dina leen jox cinq millions d'euros waaye kat saison bi ñu nekk bu jeexee gone gii di Armando Boroxa day jugee waat ca Fulham dem ca doxal able googee nag cinq millions d'euros képp la ànd ak muy Armando Boroxa ñu jugee ci Armando Boroxa jël doomu Suède bi tudd Bergval gone gi nag xam ngeen ne Barcelone da koo bëgg gone gi sax fan yële weesu ma nga woon ca Barcelone waaye nag ba léegi ay mbiram yembagut ndax Barcelone daf ca am cinquante pour cent Tottenham am ca cinquante pour cent loolu moo tax jamono ji ay mbiram dëgër te waa Tottenham it bëgg-bëgg bi ñu am moo di xaatimal ko contrat gone gi ci boppam moom dem ca Barcelone moo ko gënal waaye ñenn ci famille bi li ñu bëgg moo gone gi dem ca Tottenham doxal te soo moytuwul nag gone gi dina dem ca Tottenham ndax genn wàllu fam bi yépp li ñu bëgg moo di mu dem ca Tottenham naam gone gi Barcelona ko gënal loolee nag moo tax ba léegi ay mbiram tagga témbe bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano waaye mbir moomee dinañ leen ko toppal incha allah dara du leen ci umpo ñu jugee ci Bergaval ak ci bëgg-bëggam jël doomu Colombie bi tudd Yeri Mina moom nag ay jamono nekkoon na ca Barcelone waaye jamono ji moom xaatim na contrat bu bees tàq ca Cagliari contrat ba mu xaatim foofee nag ci juróom benn weer képp la yem waaye am na option bu ca nekk mu di lan su fekkee doxal na foofee bu ko neexee mu yokk ca beneen saison doxal foofee ca Cagliari mu yiri mina ay jamono mu nekkoon ca Barcelone waaye club bu ñu naan Everton nekk ci réewul Angleterre it nekkoon na fa jamono ji nag dem na ca Cagliari loolee officiel na ñu jugee ci yëri mina ak clubam bu bees dem ca waa Real de Madrid ñoom nag tey jii dañu doon jàkkaarloo ak grave match boobee nag derby la woon ndax ñaari club yépp ca Madrid googee la ñu nekk Real de Madrid moo am ndam ñaari bal ci dara ñaari bitu Real de Madrid yépp nag José Lu moo ko dugal match boobee sax bi mu jeexee moom la ñu tànn mu doon gone gëcc gën a xarañ waaye li yàq victoire Real bi moo di doomu Allemagne bi tudd Antonio Rudiger dafa am blessure ca match boobee bu ñu sukkandikoo ci sa Athletic nag blessure bi taxu kaa garaaw dalante rek la moom ak Greenwood te mën naa am nag du ko yàqal dara ci derbi bi war a am dimanche. Real de Madrid mooy dalal Atlético de Madrid jamono ji nag Real de Madrid moo jël pee ca Liga ba rawee Girone ñaari poñ waaye kat sur bi nga xam ne doomu Allemagne bi am na ko waa Real de Madrid defaguñu ca benn communiqué waaye mbir moomee incha allah dinañ leen ko toppal. ñu jugee ci waa Real de Madrid ak Antonio Rudiger xibaaram bu naqari dem ci match amical bi doon dox ci diggante Al ak.